salaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu bokk yépp ci turu sëriñ Amdi Fall mi toog di jëwriñ maam Cheikh Ibrahima Fall waaye muy tàmbalee am nuyoom ci Cheikh Modou Muntaxa jëwriñam ji di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko lool te wéral ay cëram li mu yéenee liggéey Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul lépp mu jëfe ko nu mu ko bëggee rek ba am si lu kawe njortam noonu lay nuyoo ak di jottali ay cantam mu jëm si mboolem njawatu Sëñ Tuubaa gi leen jottali ay siyaaram te di leen ñaanal sama borom mottali seeni yéene ci liggéey bi nga xam ne mu ngi si nekk di ko liggéeyal Sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul sëriñ bi wax ne mi ngi jottali ay nuyoo ak i cant mu jëm ci njabootug Cheikh Fall gi muy njabootug boppam gi cant goo xam ne gu gu gu am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem si mboolem ndigal yi nga xam ne jiitu na ak fii ñu toll te it noonu la amee yaakaar si li nga xam ne loolu la ñu dëgmal di leen ñaanal it sama borom na leen ba ni ko sëriñ bi bëggee nu di ko jekkoo noonu saa su ne di. mi ngi jottali ay nuyoot ak i cant mu jëm si mbooleem taalibe yi si taxawaay yi ñu am si ndigal yi nga xam ne waxtu wu ne mi ngi bàyyi koo kër sëñ Tuubaa di ñëw kër Cheikh Ibrahima Fall jataay bii nag sëriñ bi moo ko sàkk woon eh, li mu si jublu nag kenn ku ne xam na ni dafa am ndigal lu bàyyi koo si Cheikh Modou Mountakha mi nga xam ne mooy jëwriñu sëñ Tuubaa ñëw fii si kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci jëmmam ji nga xam ne mooy jëmmi Cheikh Ibra Fall di sëriñam di Fall moom sëñ Modou Mbenda ndigal li nag mu ngi jëm si liggéey bi nga xam ne naka jekk bu nu masaa toll fii sëriñ bi da ko daa taxawu ànd ko njabootu Cheikh Ibra gépp muy mbalem Touba si waajtaay yi nga xam ne si la ñu nekk ñu waajal bis boobu nga xam ne mooy fukki fan ak juróom-ñett si weeru safar te xam ne sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul sunu jàmbaar ji wax na ni lépp lu mu am rek ci bis boobu la ko sunu borom defalee ah sëriñ bi nag jot ndigal si Seex Mudu Muntaxaa ngir baleem dëkk bi bale dëkk bi ba mu set wicc ngir gan ñi ñuy teeru ak taaral dëkk bi ni nga xam ne rek noonu la dëkk bi baaxoo ba mu mel na mu war a mel te loola kenn jiituwu si njabootug Seera Faal te moom mii di jëmmi Seera Faal tey jii sëriñ bi wax ne mi ngi yëgal mboolem njabootug Cheikh Fall gi mooy buntu kër yépp nag te jot na ndigal suñu waajal mbale mi te fas yéene see jublu te am yéene taxawu ko ni ko sëriñ bi bëggee bu ñu waxee njabootug Cheikh Fall gi nag dañuy tàmbalee rek ci kër maam Saliou Fall Daaru Xafoor ak kër Cheikh Modou Moussa Fall kër sëñ Mor Tall ak kër sëñ Abdoulaye Fall Ndar kër Cherif Assane Fall kër sëñ Aliou Fall Mbawor kër sëñ Mbacke Fall kër sëñ Abdou Sakkoor kër sëñ Basirou Fall kër sëñ Gunda Fall ñëpp di nga xam ne ñooy jëwriñu kër maam am Ibra Fall sëriñ baa ngi leen di yëgal euh, ndigal loolu li nga xam ne egsi na fi moom di leen ci soññ te di xa di leen xamal ni moom ñoom ñoo ko bokk ñoo ko séq nu fas yéene ko ànd rek ba ni ko sëriñ bi bëggee mu amee ko noonu sëriñ baa ngi soññ it ak di ko yëgal mboolem ñi nga xam ne seeni wajur wala seeni maam danoo àndoon ak sëriñ bi liggéeyal ko ba am ngërëm sëriñ bi boole leen mbooloo ñu leen di tuddee ay cheikh sëriñ baa ngi leen ko yëgal di si séentu seenu taxawaay ñoom ñëpp ñoo xam ne ndigal rek lañuy teewlu ak di ko déglu ndigal li nag egsi na sëriñ bi nee na lépp lu waay jàppoon na ko bàyyi te fas yéene eh, tàbbee si ndigal lii ba ni ko ko sëriñ bi digalee la mu sa yéene ak la mu sa yaakaar lépp mu amee ko noonee sëriñ baa ngi soññi daayira yi muy daayira yi aju si kër Cheikh Ibrahima pépp foo xam ne ab daayira nga fa di tuddoo Cheikh Ibrahima Fall di déglu ndigal te am yéene wéyal ko sëriñ baa ngi lay woo nga waaj te am yéene ak yitte taxawul liggéey bi ba mu mel nu raw na mu daa mel sëriñ baa ngi soññi taalibe yi fu nu mën a ne mooy si biir réew mi ak si bitim réew si ñoom ñëpp ñu def seen xel si ne ndigal li tàbbi na te li sëriñ bi bëgg moom Cheikh Rafaal rek la ko sant te xam na ni Cheikh Rafaal dong moo ko ko mënal kon nag ñu xam ni taxawaay bi nun taalibe yi nun la war ni ko sëriñ bi bëggee ñu fexe ko taxaw noonu ba mu amee ko noonu kon taalibe yëpp ñu xam ni sëriñ bi jot na ndigal mu ngi leen koy yëgal te di leen ci soññi kenn ku ne def ko muy sa itte euh, taal muy mbokk yi ak xarit yi. ak am di jàmm yi ak képp koo xam ne kii rek am nga yaakaar si ne liggéeyal sëñ tubaa war na la wala képp ko am koo xamante ne kii am nga yéene liggéeyal sëñ tubaa sëriñ baa ngi lay woo di la soññi te di la nekk ci liggéey bii nga xam ne mooy ndigal li ko sëriñ Muntaxa jox mu ñu setal dëkk bi ba mu set wécc mu mel na mu war a mel ba gan ñi bu nu agsee ñu fekk fi loo xam ne dina méngook dëkk bi sëriñ bi mu ngi soññi waa bitim réew ñi nga xam ne taxawaay yi ñu daa am jumtuwaay yi yëpp rek mu ngi leen di soññi kenn ko ne def ko muy sa itte te xam ne ndigal la loo xam ne lu rëy fi moom la ndax ndigal lu kawe la ndax liggéey bii kat di bale dëkk bi bii Cheikh mu Moussa Mbacké daana def bu masaa bàyyi ba suuf sedd mu topp biir Daaru Xuddoos wala biir kees gi di lal di lal mbubbam di buub di wut fu mu koy sotti ndax xam dayo sellal dëkk bi ak setal ko nu mu toll segam nag doomi sëñ tubaa njëkk ko wuutu moo am joxoñ boobee joxoñ ko ba tey jii ñi fi nekkal sëriñ tubaa di ko roy si doxin woowee asamaan nun taalib yi nga xam ne ndigal rek la déglu kon sëriñ bi nee na na ñëpp jekk na ñëpp waaj te xam ne ndigal li egsi na ñaar fukki fan ak juróom-ñeent lay doon ci weer wi ñu nekk tombe ak benn fanu safar muy altine su ko defee murit yëpp daje si ginnaaw ñi nga xam ne ñoom lañu ñu tànn ñu ay jëwriñ jiite ko ñun Serigne Fallou Fall ñun Serigne Modou Aminta ànd kook Serigne mu Mbar ak ñi nga xam ne ñëpp seen i rakk lañ euh, ñu jiite liggéey boobu yi ñu ànd kook ñoom ba ni ko sëriñ bi bëggee nanu ko daa defee nu defee ko noona ba ni ko Serigne bi bëgg yëpp mu amee ko noonu sëriñ baa ngi soññ ñëpp te di xamal ni moom ma ngi si liggéey bi te ku ñëw da ko fi fekk yitteem weesuwut li Serigne bi bëgg mu def ko na ko sëriñ bi bëggee su suñu noppee nag toog di dégluwaat leneen ndigal ndax kenn ku ne xam na ni. mbale mi bu weesoo rek dañuy daal di tàbbi si biir màggal gi te sëriñ baa ngi fas yéene fii nga xam ne fi la ko dundale woon daaw mu fas yéene fee nekk ànd kook taalibe yi ak njabootug Cheikh Fall gi ñu nekk fa di ko dundal ak di di déglu ndigalu Cheikh Modou Muntaxa sëriñ baa ngi ñaanal ñëpp yàlla sama boroom defal leen taw tawféex ak fekke ba ni sëriñ bi bëgg ñu defee ko noona wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa